moom na fi sëriñ Murtada Mbàkke Fallu moom it yabal na fi ay doomam soxna ummi Mbàkke moom sëriñ Fallu moom tamit teew si na fi sëriñ Maamun Busa Imaam moom tamit teew na fi sëriñ daan Diouf Belal moom sëriñ na Diouf Lambaay teew na fi sëriñ Moustapha Mbak sëriñ Moustapha Mbar ak njabootu sëriñ Moodu Aminta Fall jëpp teew nañu fi ci ndigalul sëriñ Fallu Fall xalifa sëriñ Cheikh Ndigal Fall moom teew si na fi ànd ak mbooloo sëriñ Baara Diop daaru Sam bokk ci njabootu Serigne da Serigne Masamba Diop Sam teew si na fi ak Serigne Alaaji Serigne lahat moom Serigne Moodu Ajara Mbàkke teew na fi Serigne Bassirou Fall alxuraan yónnee na fi ñaari doomam Serigne Bassirou Fall ak Serigne Bada Fall Serigne Jili Mbàkke moom sëriñ Ahmadou Mokhtar Mbàkke daaru Moxti moom it teew na fi Serigne Abdoul Ahad Mbàkke moom Serigne Abdou Khadir teew si na fi Serigne Cheikh Fall Gay Guèye bokk ci waa kër Serigne Adama Guèye teew teew na fi sëriñ Maxtaar Jaxate teew na fi sëriñ Moodu Mbàkke si teew na fi sëriñ Fallu Busa teew na fi sëriñ Abdulatif Jenn xalifab Seex Isaa yabal na fi doomam sëriñ Seex sëriñ Cheikh Aline Jenn yabal na fi doomam sëriñ Siidi sëriñ Abdou Salaam Jenn yabal na fi doomam sëriñ Siidi sëriñ Sohaybu Jenn xalifatub sëriñ Baara Jenn yabal na fi ak njabootam jëpp sëriñ Abdulatif Jenn xalifab sëriñ Mbàkke Jenn moom teew na fi ak rakkam sëriñ Cheikh Asubay Jenn ak njaboot ga gépp sëriñ Cheikh Jenn xalifab sëriñ Yuusu teew si na fi ak rakam sëriñ Naar Jenn xalifab sëriñ Basiru Jenn moom sëriñ Baara teew na fi ak rakam sëriñ Suhaybu Jenn jaara xalifab sëriñ Mbàkke Mareema Jenn moom tamit teew na fi sëriñ Bada Sëy ak rakam sëriñ Omar Sëy ak njabootu sëriñ Ali Sëy teew nañ fi sëriñ Aada Jenn ak rakam ak njabootu sëriñ Mor Jenn teew si nañ fi sëriñ Daaru Tànni ni ak njabootu maam Daaru Ngañ Tànni teew nañ teew na sëriñ Jiili Mbay Madina Mbay teew na fi sëriñ Sulay Gay Njaaréem teew na fi sëriñ Saalihu Njaay moom sëriñ Morsey Njaay teew na fi sëriñ Abdou Surang yónnee na fi sëriñ bi nee na xam naa li ñu doon wax léegi lim moo mënta ñàkk ndax bari na kilifa yoo xam ni démb ba léegi ñu ngi baamtu bu ñëwee dañ leen fàtte mën nañoo wax ni koo xamante ni dégguñu saw tur déggu saw turit te doon kilifa na sëriñ na xam ni moom la sëriñ bi jiital ci lim bi waaye bi sëriñ bi wootee daal ci gàttal njabootu borom Touba gépp teew si na fi ndax seex Cheikh Mountakha Bassirou mi fi nekkal sëriñ Touba yëg na bis bi jàpp na ko ba tax mu yabal doomam ji sës ci moom indi ko wax ko ni ko demal teewal ma ca bis ba neena na loolu doy na ko sëkk kon mën nañoo gàttal ci lim bi sëriñ bi neena na xolam sedd na guy mi ngi ñaan ñu teewee ko déwén gépp kilifa gu fi teew ak ku fi yónnee sëriñ bi nee na mi lay sant mi ngi lay gërëm bu baax baax noo ngi siyaare ñëpp di balo ñëpp di balo àq ñëpp di ñaan sunu boroom yàlla na nu boole ak njëgal nu ñëpp nii nu ko teewe woon daaw waat ko ren ji yàlla nañu ko teewe déwén ci barke borom Tuubaa barke sëñ naar jenn noo ngi tàmbalee sunuy kàddu ci santaat sunu boroom ci woote bu tedd bi nga xay nii sunu jëwriñ jii di sëñ moo ko woote woon te woote bi mu tàmbalee woon ko ci lu jiitu ci biir koor ga la mu ci jiitaleen muy njàngum alxuraan ak xasaayit bi nu toogee ci jataay bi itam yi boppam mu wubbi jataay bi ci alxuraanul karim kon foofu la ñuy tàmbalee suñuy wax dafa mel ni kon sëñ bi loolu mu doon woote taalibe yi wuy ji nañ ko ci bu wér ndax nun lim ba nu aman fee ci sow ba nu ko indee doon ko won sëñ Talla Sall mi xëy ni daa bokkan ci ñi doon bind lim boobu danoo wax lu nekk fi mu am lu nu yéem ndax fee mu bàyyi ko di cosaanam muy njukki ak jamatil dafa am màndarga mu ñu leen daal màndargaal démb mu bokkul ak màndargam tey mii kon bu sëñ bi wootee te jiitalan njàngum alxuraan ci woote ba daara yi ñaari daara yi nekk foofii muy njukki ak jamatin jenn daara ji sëñ moodu daraame jàng ñetti téeméeri kaamil ak fukk ñett ak téeméeri tayseer daara jamatil ji sëñ moodu njaay jàng téeméeri kaamil kon day mel ni sëñ bi ñoom yow la nga doon woote ñoom wuy ji nañu ci ba mat sëkk lim bi fi sëñ taale indi ci li jàpp moom dong toll na ci juróomi téeméeri kaamil ak ñaar fukk ak juróom-ñett ak junni xasaayit ak juróom téeméer ak junni xasaayit ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar yu nu xam ñu jàng ko kon sëñ bi mel na ni loolu li nga ci doon woote wuy si nañu la ci waaye yal na sunu borom nangu lépp te jotale ci boroom ak mbooleem ñu baax ñi tëdd gi suuf ñëpp sunu kàddu nag dañ koy jëmale sunu boroomi taalibe yi rek sunu mbokki taalibe yi muy sant leen ci li nu weesu te di leen soññ ci liinu jublu te nu bàyyi xel ni dafa am xel koom jonxani ji ab ruuj la wan am ku ma jox ay ngànnaay jumtuwaay yu ñu war a ruuje ni ma boo demee tegal ma ko ci loxol sëñ Basiiru mum sëñ Baara Jenn ndax boobu mooy jëwriñ ji ba ma demee yëkkati ko teg ko ci loxoom sëñ Basiiru dama ni lii de yóbbante bu gaal gaal dong la wuwul làmb yóbbanteb galgal wubul làmb bu ñëpp defal ni moom dara du fi sotti kon nan bàyyi xel ci bu sëñ bi wootee lu waay jàpp nga bàyyi ko te wuy bu laajee lu waay am nga joxe ko ngir jëm sëñ bi ndax laajalul boppam wooteelul boppam la bàyyi waajurum tedd wa doon woote rek lay woote la mu daan laaj lay laaj kon nag ñun ñëpp ci war a bàyyi xel nu jublu ci tabaski gi waajuram bu fonkan ko lool moom mit mu fonk ko lool ndax fonk gi mënta weesu fa ko baayam yamale woon muy sëñ naar genn fa mu ci toll woon mu dem ba ñëpp xam ni weesu na ko kon loolu mooy fonkeel gi te tabaski yooyu bàyyi ko fenn jëndu cim xar ci taalibe rek lay bàyyikoo ko waxan naa leen fii daaw ni leen lu ci waay néew néew doole bu sa soxna aman ñaari doom loo néew néew doole say bokk nañu dimbale mu nga am ñaari xar kon sëñ bi xar mii muy laaj jëme ko kër sëñ Touba te ren ba déwén la koy laaj nun taalibe yi nañ ci bàyyi xel fàggu ko fàggandi ko te def ci sunu jom def suñu posteef nu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ko ñaanal mu yàgg fi lool tànd wér ndax barab bii mu toogee ku mel ni nun ñii bi muy soog a toog am na nu njàqare lool ndax ki mu wuutu daana xaree wuutu ndax jëmm la joo xam ne ji yoonu murit wépp ko xam ñëpp a ko naw te nawe wuñu ko dul jëfam ndax yonent bi salaahu salaam ba ko yonent bi tagg ba ko yàllay tagg xamal na judd bi rafet na waaye tëggu woon ko tëggu ko ci ab juddu ci jikko la ko tagge woon jëmm ji itam ku nekk xam nay judd bu rafet ci moom la mën a yem muy Cheikh Ibra di sa maam Cheikh Issa Diène di sa maam waaye loolu mësu koo damoo ak taalibe rek la masa damoo loolu mu amul woon lu dul moom mu am ko lu mu may lu mu am lu ne loola may ko ko kii ko fi wuutu taxaw ca tànkam yooyee ba jëf ci jëf joo xam ne yoonu murit yëpp teg nañ seen bët noo ngi ñaan ci kàttan suñu borom yal na yàlla wéral ko yal na yàlla kàttanal ko ak mboolem ku ko yéene ak mboolem rakkam yëpp ak doom yëpp ak taalibe yëpp sunu xel dal na sunu xel sedd na yàlla na nga fi yàgg teer joueur taalibe yi nan xam ni ab taalibe njariñam lépp ma ngi ci wéy ci ndigal wéy ci ndigal bàyyi tere ak joxe saw ñaq nan tënku foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu sante yàlla sunu borom subhaanahu wa taala ñoo ngi julli ci yonentam bu tedd bi muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ngi sant sunuy ñaari waajur di ñaanal xalif général des mourides sëñ Muntaxa Basiru Mbàkke yàlla na fi yàgg te waaye tamit di ñaanal sëriñ siidi Naar Jenn yàlla na fi yàgg te moom ak njaboot bi di ñaanal sunu sëriñ yi surtout Cheikhul Khadim yi fi teew yépp depuis suba ba léegi ñu ngi fi ñëw di leen ziyaar di fasante ak yéen kóllëre ñu ngiy jël suñuy nuyoo di teg ci loxo sëriñ Naar jenn mu yeggaleel ñu ko famille boobu yépp sëñ Sidi màggal bi daaw moo doon sama njalbeenu màggal bu ma ñëw fii ci dëkk bu tedd bi di Touba fii laa njëkkee ñëw màggal daaw bu ma jëlee service ñaanoon nañu yàlla nangu na ñaan ndaxte teewe nañu ko tal nañu ko yàlla may nañu jàmm ñu ngi koy sant eh, di wax ni màggal bi comme màggal yi am Touba yëpp dañoo am dalil ñu war a tax ñuy màggal ñëw war a màggal lañu mooy sa waajur sang bu tedd ba Serigne Naar Jenn yàlla na yàlla yokk leeram sa àllaaxira ak sa waajur bu tedd ba Cheikh isaa Jenn ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp yàlla na yàlla yokk seen leer sa àllaaxira ndaxte ñoom day moom sëriñ naar ànd bu mu àndoon ak euh, sëñ Touba radiyallahu anhu ànd ba rafetoon na ànd ba wone woon na dëgg dëgg dëgg taalibe murit nan la war a mel damay bare di tooñ sax di wax ni Baay Faal bu sant woon Faal dina sant jenn ndaxte sotti si mooy def si rek Ah, moom dey sang bu tedd bi nu mu taqe woon moom sang bu tedd bi nu mu façon yi liggéey laxasaayu takk ndiggam àndanteeg moom liggéey ci yoonu murit demoon na ba sang bu tedd ba sax bu ma doon waxtaan ak léegi suma mag sëriñ Moustapha Yanka te moom moo ma gunge tey jii ci jotaay bi daf ma ne woon sëñ Touba daf ko doon woowee xorondom xorondong la ko doon tooñ loolu am na lu muy firnde ndaxte tey jii bu ma toogee léegi dégg sëñ bi jëloon kàddu bi léegi di soññ taalibe yi ci xarum tabaski ñu koy def ay at depuis boobu ba léegi loolu yëpp kóllëre la kóllëre boobu nga xamante ni bi sa waajur yooyu ñu ngi fa tegoon seen tànk àndante ko ak Seexul Xadim tey jii nekkuñu fi mel yéen a fi nekk surtout Serigne Touba yi tey jii ku fi représenté fii si Touba Cheikhul Khadim mooy Cheikh Mountakha Bassirou mooy sëñ Mountakha Bassirou Mbacké te jii ku fi représenté tey jii naar jenn yow la sëñ Sidi naar jenn yàlla na ngi fi yàgg te sa liggéey rafet na mission bi nga xamante ni bii moom nga yore tey jii si dëkk bi dëkk bu tedd bii si yoonu murit mission bi rafet na te ku ñëw tey jii fii gis ni am na mbooloo waxoon naa ko fi daaw gis naa ni taalibe yu lay wër ay xale lañu ay ndaw ndaw nag woon naa ni dafay soxla royukaay dafay soxla modèle modèle bi mi ngi fii bu dee rek model ndaw bi nga xamee ni bi dafay njëriñ réewam njëriñ askanam njëriñ boppam ma ne mi ngi fii si kër gi yoon baa ngi fii yoonu murit yoon boobu nga xamee ni bi ah, sunu maam Cheikhul Khadim moom la waxoon rek yaru sàkku xam-xam jàng sàkku xam-xam liggéey jaamu yàlla ma ne boobu yoon amul kenn ki nga xamee ni bi moo leen si gën a yoo tey jii damay dem bay wax ni sax senegaal bu ñu dee wut programme éducation am nañ ko ba pare amul lu ñuy jéggaane fii ci Sénégal ndaxte yépp sunu maam yooyu tëral nañ ko tegal nañu ko ba mu leer naññ nañu soññ xale yi si yoonu murit boobu ndaxte dëkk bii nga xam ne moo tuddee Sénégal ëmb ay dëkk yi nga xam ne bii ay nit yu tedd ñoo fa tëdd tey jii dëkk googu dafa am baatin sunu borom daf ko ñaanal te ay teraanga ñu ngi fii feeñ si réew mi tey jii ngeen ñaan si kaamil yi nga xam ne bii wàcce nañ ko tey jii xaw ma ñaata kàmbi la ñu wàcc ñaata xasaay la ñu jàng fii ngeen ñaan si Sénégal yàlla may ñu jàmm defal ñu jàmm ndaxte réew mi ah, jamono bi dégg ngeen wax bi bare na lool waaye jàmm rek nañu waxtaan ndaxte sunu Sénégal la jàmm moo ñu gënal lépp lépp lu ñu am te amuñu jàmm soxlawuñu ko donc yàlla nañu yàlla defal jàmm sëriñ bi ñu ngi lay taalal loxo tamit nga ñaanal gouvernement wu président de la république son excellence Macky sal ah mbébétam fii ci Sénégal Sénégal dem kanam mu jëriñu ñun ñëpp jëriñ askan bi ah, jëriñ aussi ah, umma islamique bi yëpp tamit di ñaan tamit nga ñaan yàlla may ñu nawet bu barkeel ñu ngi jëm ci nawet bi yàlla na yàlla wàccee taw taw tawu jàmm ndoxu jàmm lépp lu ñu jiw mu barkeel na peppi suuna sëñ bi ñu ngi lay taalal suñu loxo di ñaan tamit nga ñaanal ñu ñun tamit gudd fan ak wér mission bi nga xamante ni bi moom lañuy ñëw fas yéene euh, dox ko si wetu si seen wet ak si wetu sëñ xalif général de mu sëñ Mountakha Bassirou Mbacké mission bi tamit yàlla na ko yàlla oyofal ñaanaloon nga ñu ko fi daaw maye nañu ko ñëwaat nañu tey jii fii tàllaatal la sunuy loxo di la ko ñaanal di ñaan donc yàlla nañu yàlla defal jàmm taalibe yi murid yi tamit leen ñaanal kii nga xam ne bi tey jii mooy seen njiit am ngeen njiit ku am njiit nag danga koy topp rek te Baye Fall ndigal la xam Touba gis nañ fi seen place man gis naa nu baax seen liggéey keroog maa ngi doon def benn émission rek si euh, kii bi euh, koor gi ma ne man day Sénégal wër naa fu nekk waaye koor gi ma koor tey ji fii si Touba maa ngi sant yàlla sunu borom ndaxte mosuma kaa koore fenn si jàppale si ay xéwal si ay ñaan ci ay barke ci ay daraja te loolu gis naa si seen taxawaay ajjuma bu jot bés bu nekk gis naa murid yi Baay Faal yi ni ñuy laxasoo du yóbbu ndogu bi macha allah yàlla na leen yàlla defal jàmm kontaan naa trop si yéen mënoo xam Baay Faal tant que ñëwoo Touba nag yàlla na leen yàlla defal jàmm. sëñ bi fii laay yemal kàddu bi lu ma war a wax yëpp bu ma ko bëggee wax tey jii du sotti mais ñu baax ngeen daal waaw donc euh, baax foofu rek la nit mën a yem yàlla nañu yàlla defal jàmm. jërë ngeen jëf wasalaam